tey woote bi man maa ngi tudd Soxna na Fall euh, nekk coordination union nationale des femmes coopératives Sénégal li waral tey woote bi ci union régionale des femmes coopératives bon ci cadre benn partenariat la boo xam ne dañ ko nuyee ak Carrefour International Carrefour International benn ONG canadienne la boo xam ne ñu ngi liggéey depuis 2014 ci fànn yu bari léegi nag ñun ci wàllu Covid bi bi mu ñëwee. dañu xool ne am na daal ay impact yoo xam ne gis nañ ko par rapport ak euh, Covid bi ci wàllu surtout ci wàllu sécurité alimentaire soo jëlee beneen aspect bi aussi ci aspect organisation maanaam ci suñu kuréel euh, am na ay impact yoo xam ne jur na maanaam ci wàllu doxalin bi ndax ku nekk xam na ne euh, activité économique yi xawoon na ralentir taxaw tuuti ak restriction yi ensuite réunion yi amatul cotisation yi taxaw bon ci ci loolu daal lañ tëggoon benn projet projet bi nag dafa am. benn loo xam ne daf ci spécial parce que duñu ñu rek mais ñetti partenaire la ñun la ak APROFES association pour la promotion de la femme bu nekk Kaolack ak réseau benn réseau de coopérative bu nekk au niveau du Sénégal ñun dañu àndandoo woon ak Carrefour tëgg benn euh, projet boo xam ne pour faire face aux impacts de la Covid ci loolu ci lañ ko financé financé ñaari aspect benn bi ci wàllu. kuréel bi la dañu jàppale ci wàllu appui institutionnel beneen tànk bi ñu jàppale suñu comité communauté yi maanaam suñu jigéen ñi surtout euh, ci aspect sécurité alimentaire bi ku nekk cent cinquante jigéen lañ tànn téeméeri jigéen ak juróom fukk yoo xam ne ku nekk euh, am na kit kit bi dafa am ceeb am suukar am saabu euh, am savon liquide je pense que am am dugub. Ah, loolu daal la globalement loolu daal moo ñu fi indi tey nga xam ne au moins euh, xëy na du laal jigéen ñëpp mais dañ ne nañ ko jox les plus vulnérables ndax groupe boo gis tamit am na ñoo xam ne xëy na ñoo gën a néew doole boo ci lool la daal ñu tànn suñu fukki groupement ak ñaar yoo xam ne incha allah bëgg nañ ku nekk euh, am ci gis ci sa bopp daal ñu tànn ñu fa gën a néew doole parce que xëy na mënuñoo dajal ñëpp parce que groupement bi lu mu néew néew dina mat ñeent fukki nit mais ca groupement ba dañuy seet ñi nga xam ne ñoo fa gën a doole ci département Diourbel ak bu Mbacké daal lañ ko fas yéene séddale déjà commencé nañ sax séddale bi moo di ko rafetlu bu baax nag xëy na amoon nañu yéene bi waaye man-man mi demeewul noonu. mën nañu citer quelques groupes yoo xam ne am nañ ci. waaw group yi ñi ci am boo jëlee naa la toog yi groupement bu mel ni Afia Mbacké ñëw na ba jël euh, dis kii am Jokkom aussi jël na soo demee naa la aussi Gorote bokk na ci euh, Mérina Diakho ci la bokk. ensuite Daala Mbàkke ngay ci la bokk euh, sawkaar yi aussi ci la bokk kër Abdou Seck euh, ak Daaru Njaay bari na daal fukk ak ñaar la ensuite ak euh, ak kii turandu la mm-hmm. waaw ñooñu ñëpp lañ bokk. ñi leen jàppale ak xube mm-hmm. ñi ñi leen jàppale noonu di wax. waaw xanaa di leen jaajëfal rek di leen sant bu baax parce que ñun amoon nañ yéene bi mm-hmm. waaye xëy na man-man mi àggu fa. Euh, mënuñu woon def distribution boobu waaye comme vraiment ñoo ñu jàppale jàppale ñu non seulement ci suñu kuréel fayal ñu ay quelques mois de salaire euh, jàppale ñu ci wàll suñu réunion yi ñu daan def wëlbatiku ci wàll communauté bi suñu membres yi nga xam ne xëy na dañu amoon ay problème ja jànkonte ak jafe-jafe riposte kii bi Covid bi ñu jàppale leen ci wàllu wàllu lekk parce que boo heure boo nee cent cinquante mille rek. Nous avons leen au moins ko par 5 lu mu néew néew tey projet bi 1000 bénéficiaires wala plus dinañ dinañ ci laal ñun daal nañ leen di gërëm bu baax di leen wax ne aussi ñu ngi leen di gën a tàllal suñu loxo daal di leen remercier bu baax. voilà madame Fall vous avez bénéficié d'une aide destinée aux femmes vulnérables. Mm-hmm. est-ce qu'on peut savoir exactement d'où vient cette aide? Euh, voilà merci beaucoup monsieur Sall. Aujourd'hui, nous sommes là à l'Union régionale des femmes coopératives de, de, Bon, pour euh, faire la répartition ou la réception des, kits, c'est des kits alimentaires composés de sucre, de riz, euh, de mille, de savon, de savon liquide, euh, et détergent, etc. Ça, c'est dans le cadre d'un partenariat que l'Union nationale des femmes coopératives du Sénégal avait noué depuis 2013 avec Carrefour International. Et euh, depuis, cette année-là, avec euh, la pandémie, nous avons pensé avec d'autres partenaires de Carrefour, euh, qui sont APROFES, Association pour la promotion de la femme sénégalaise. Il y a le réseau aussi. Nous avons élaboré un projet avec Carrefour International pour la réponse aux impacts de la COVID. Euh, finalement, c'est financé par Affaires mondiales Canada et sur deux aspects. D'abord, sur le plan organisationnel, ils ont appuyé l'organisation sur euh, le paiement de salaire, euh, l'appui institutionnel pour les rencontres commerciales, etc. Et ils ont, ils ont ensuite financé 150 femmes au niveau du réseau, mais les couches les plus vulnérables ce sont les femmes, soit les femmes divorcées, les femmes les femmes dont le mari ne travaille pas. Euh, pour ces kits, c'est comme je l'ai dit, c'est composé de riz, de sucre, de détergent, etc. Et il y a un aspect très important aussi, parce qu'au lieu d'acheter les produits sur, le marché, euh, nous, au niveau de l'UNSF, nous faisons leur savon. Nous avons vendu nos savons à, à et au Réseau. Et Résop, comme c'est un cultivateur de riz au niveau de la vallée, Résop a vendu le riz à l'UNSF et à la province. Je pense que ça aussi, c'est un aspect très important à soulever. et C'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Parce que nous avons gagné deux fois. Nous avons gagné parce que nos, bénéficiaires ont bénéficié des kits. Mm-hmm. Et nous avons gagné parce que nous avons vendu, vendu nos produits. Vraiment, un grand merci à Carrefour International et à Affaires Mondiales Merci beaucoup. です。ナ